sa biir këttu nag fii mi ngi ci jublu rek cosaan yi nga xam ne ñoo ëmb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci seen ndigg yi ak ci seen biir yi këñ ëmb ci seen ndigg yi ci seen biir yi moom mooy e, wurus wu rafet woowu waaye moom waxuma la moo gën a rafet yeneen wurus yu moom waaye bàyyi ya ko ëmb sax pellite pellite yooyu ñooy pellitamkat ñoo gën a rafet lépp luñ mës a ëmbati képp kuñ mës a ëmbati bépp wurusati sabaikuhu ay pellitam moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama way xeeb lañ aljawahira wurus wurus aljawahira jamu la walim la lu tax loolu du am wa huwa te moom rasulullahi sallallahu alayhi wa aynun cosaan la lil uyuuni ñeel cosaan yëpp moom mooy cosaanu cosaan yi di kon kay moo war a gën a sell ci woy njëkk moo war a gën a sell ci way mujj waaye lépp lum jaar ak fépp fu mu jaarit ñoo war a gën a sell ci way njëkk ñoo war a gën a sell ci way mujj sabaikuhul jawahira mudriyatun wa limla wa huwa aynun lil uyuni sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ñeel na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ay kawteef way wetax waaye irhaasaat lañ koy tudde xablal wilaadati njëkk juddu gi yonentu sallallahu lu jiitu muy juddu sax ay mujizaatam bari woon nañu lool mujizaat yoo xam ne taraa dana gis ko ummoo ki kii aminatu doona runooni ci ludul benn sikk-sakk sayyidatuna aminatu wax nañu kéemaan yu bari yi nga xam ne gis na ko diirab lim ëmb yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama <clears throat> diirab lim ko ëmb gis na yonent yi ñuy di ko ndokkeel waaye ba mu koy imbi tamit gis na jigéeni aljanna yi gis na yu bare bare bare bare ba juddoo nag nu mel Maodo ne naqiyun aji set la mu wecc fii wilaadati aji nekk la ci juddu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ujaabun goo xam ne yo ayi dana lottal kulla di aqlin bépp boroom xel ba nii nin xelu képp koo xam dana jëfandikoo xelam bu xelaatee li xew ci juddug yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana jommi dana wax ne daal lii daal ta nekk rek ku normal dëgg-dëgg romb na normal ndax moom ci barkeem lañ tuddee normal lañ bindee normalité sallallahu alayhi wa sallam te moo war a normaliser ñëpp wa makxuulan wa masruuran nadiifan ataa yowma alwilaadati fi cuyuuni yusabbixu rabbahu tasbiixa cabdin baruurin dinkisaarin mustakiini wa baytullahi fiihaa dutiraabin fayaa lallahi min shahmin makiini wa maala albaytu bilarkaani xataa yukabbira saajidan mithla alfatiini mu ñuy wax nag lenn ci kémtaan yi nga xam ne xew na ci juddug yonent bi sallallahu alayhi wa ala wa sahbihi wa sallam mu ne wa ataa dikk na moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yowmal wilaadati bésub juddu ba fii uyuuni ci sell wala ñu ne fii uyuuni jamu ayn al ayn al basirati fii uyuuni ci bëtu nit ñi ñoom ñépp ñu gis ko makxulan muy ku ñu tusngal moom tusngalu euh, asamaan lay indiwaale yàllaa ko tusungalal boppam noonu la ko bindee wa masruran muy ko ñu daggal lu tam jumbax kenn daggalut ko lu tam nadifan muy aji set wëcc wëcc wëcc sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi sallam benn tilim newut ci moom yii yëpp bokk na ci kéemaan yi nga xam ne eh, sayyidatuna aminatu ak sage femme yi ko doon dimbale ku mel ni shifa nday ndeyu abdurahman ibn awf wax nañ ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi juddoo moo tax képp ku ko daan mel rek ne fii aynihi kaxalun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama judduna yusabbihu di sabbal rabbahu boromam tasbiha abdin kem sàbbaluk jaam baruurin kay baaxakoon mooy koo xam ne jéggi na dayoo ci mbaax zinkisaarin kay boromuk dammu mustakinin kay aji toroxlul boromam subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu wa sallam moo gën a baax ci jaamu yàlla yi xam nga Cheikh Tidiane dana tudd na abd mu ne ñetti njaam ñetti ngàllo moo am al ibadatu wal ubudatu wal ubudiyatu mu ibadatu mooy taxaw gi jaam di taxawee mbirum yàlla ci maqaamul islaam nee na boromam teewloom léeg-léeg rek lay am ci jamono bu néew lay am te coono bu bari lay am pour mën a teewlu mooy kii soog a sóobu wala ki nga xam ne doxam gaawut bu dee ubudiyatu nag mooy alqiyaamu bi amrillahi fi maqaamil imaan waxe wal qawlu li cheikh radiallahu anhu kii taxawee santaane yàlla ci maqaamay liimaan mu ne boromam dafay fekk danga koy fekk mu teew ak yàlla subhaanahu wa taala waaye njëlbeenam dafay am xudur boobu ci gannaaw kiiraay gu diis dana continuer nag ba kiiraay ga woyof lool bu dee boodatu nag mu ne mooy taxawee mbirum yàlla ndigalum yàlla ci maqaamul ixsaan boromam amatut dara nekkatul fa lu yàlla subhaanahu wa fay janook yàlla ci euh, jano dafay gis yàlla ci jano ci bëti xolam ak ci leeru yaqinam euh, dara nekkatu fa yàlla rek fa nekk subhanahu wa taala gisatu dara yàlla rek la gis subhanahu wa taala kii sangu ñooñ nag te mooy cosaan ci ñooñu mooy rasulullahi moo tax ba mu juddoo mu ne gis nañ ko yu sabbixu muy sàbbal rabbahu boromam tasbiha abdin sàbbaluk jaam baruurin bay baxaakoon zinkisaarin ngay boroomuk damu mustakinin ngay boroomuk toroxlu wa baytullahi fiiha dhu tiraabin fayaalallahi min shahmin makini wa baytullahi néegu yàlla bi ki kaaba gi dhu tiraabin boroomuk baj-baj loola fiiha ca juddu gi nga xam ne moom la yonent bi juddu fiihaa ci guddi gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa fa yàllallaahi woo naa kéemtaanal yàlla min chahmin ci sang boo xam ne aji wéy ji atte la makiinin kay aji darajaw kay kattan ku jógee ci boromam subhaanahu wa taala wa mala te jàng sax albaytu néeg bi bi larkaani ànd ak i ponkam mook la ko samp yëpp xataa yu kabbira ba mujj mel ni kuy kabbar saajidan mbir moom mu mel ni aji sujjóot la mithlal fatini mbir moom mu nekk comme aji xellu koo xam ne xam na lu muy def lool kaaba gi bi yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci yiñ xamee ne lëf xew na Quraysh xam ko mooy gis giñ gis kaaba gi muy baj baji ak mu jàng ba mel ni kuy sujjóot ñetti fan ñu ne kaaba gi euh, toogut parabam loolu mooy li nga xam ne moom la Quraysh njëkk a gis ci janoo ci euh, mujizaat wala irhaasaat yu feeñ ci juddu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ala wa sahbihi wa sallama yooyu lenn la ci yi nga xam ne gis nañ ko ak yi nga xam ne sayyidatuna Aminatu gis na ko sayyidatuna Aminatu nee na bii <coughs> yonent bi euh, juddoo gis na ay jigéen yu jógee euh, bu ñu mel ni dañ ko ñëw di ko euh, réewle si ndeyu abdurahman ibn awf nee na bi yonent bi juddoo ba tàkku am na aju wax joo xam ne gisuñ ko ñoom ju ne ko yàlla na la yàlla yaram nee na gis nañu diggante penkook sow yépp leer nañi ba mangi janoo ak paley ruum ya xusuuru ruumi sayyidatuna umu salamata nee na aminatu nee na gis naa bi yonent bi juddoo sallallahu alayhi leer goo xam ne leeral na ba ma gis pale Sham ya yonentu sallallahu alayhi bi mu juddoo ndey aminatu nee na leer génn ci man goo xam ne leer na ba yegg ca palais Sham bi nga xamee ne mi ngi koy jur booba sayyiduna abdul muttalib ma nga ca kaaba ga ak ya ca xew yépp ci ye ñëw laal ko di ko dimbale ba nga xam ne yëgul dara li jigéen ni yëg ba bi koy eh, jur ak ñi nga xam ne ñëw na ñoom day asiyatoo day mariam ak day ak xurul ayni yi nga xam ne jóge nañu aljanna eh, yooyu yëpp tabaarakallahu mi ngi ci kutubu siirati bu ngeen bëggee mën ngeen ci dellu da ngeen am lu seddal seen xol ci juddug yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sàbbal bi sallallahu wa sallam lim njëkk a wax gannaaw bu mu juddoo mooy allahu akbaru kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asilan ñi ne déeréet lim njëkk a wax mooy jalaala rabbi arrafi wa demee ca euh, suhayli yu anil waaqidi dana ko tudd mu nekk tamit ci kutubu euh, siira yi tabaarakallahu juddu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga moo waraloon taalif téere bi moo tax mu nga cay uh, xóotu ak da ca xuus alayhi ridwanullahi moom mawlana alxaaj malik ana lu xew nag mu ne daa ruhbaanu an jana mubinun tataabaat ilhawaatihu lithaqiini biha xalla alkawaakibu mushriqatin kama xalla almalaa'iku lilxasini maanaa tudd na waa xayb ma ngay tudd it waa shahaada waa xaybu te ña ca gën a màgg mooy anbiyaaw yi aadama ñëw na abul bashar ci weer wu njëkk wa aminatu ne ba ma ko gisee ma ne ko yow ak kan ak bëgg mu ne ko yaa aminatu faqad xamalti bi sayidil bashar wa faxri rabiata wa mudar weeru ñaareel wa kana ñëw shiithu ne ko faqad xamalti bi saaxibi tawili wal xadiisi weeru ñetteel wa ana ku ñëw idris abshiri ya amina faqad xamalti binnabiy rais weeru ñeenteel wa ana ku ñëw ci yonentu yi alayhim salaatu wassalaam nuux abshiri ya amina faqad xamalti bi saaxibi nasri walfutuux weeru juróomeel wi ana ku ñëw sayidna huut qultu ma ma turid amina ne ko loo bëgg ne abshiri ya aminatu faqad xamalti bi saaxibi shafaati aluzma fi lyowmi almawcuud weeru juróom-benneel ana ku ñëw seydina ibrahim alxalil abshiri ya amina faqad xamalti binnabiy aljalil weeru juróom-ñaareel ana ku dikk seydina ismail aldabix abshiri ya amina faqad xamalti binnabiy alrajix